وبالقرآن وبالتوحيد ثم به sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin alhamdulillahi alkarim zilminan ala ishtighali bi furudin wa sunan lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul gharaba inni ahmadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi a cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tànd ko wér bali ci liggéeyal ko lislaam ak liggéeyal ko yoonu murit suñu borom ko kàttan gi ak wér gi mu ko gannaaw loolu ñu ngi nuyu baax mbooloo mañ moo nooree ni di leen ziyaare bu baax di jiital ci nuyoo bi suñ baaram yi nekk ci caméra bi ak suñ Mbacké di leen ziar di leen ñaanal tawfeex di nuyu baax mbokki taalibe yi ñuy topp yëpp ci seen émission jaalibatul buruur ngeen koy ànd ak seen mbokkum taalibe Zaid Ba ci euh, Majmahun Nurayni TV kon nag tey suñu gan gi tedd gi di moo ki nga xam ne moom lañ fa yéenee dalal muy Serigne Daouda Faye di boroom xam-xam di suñu xarit di mbokkum taalibe ñu bokk daara ji nga xam ni moom lañ daan yëngatoo muy euh, école Xaar Diop ñoo amandoo woon foofu certificat bañ fa jógee moom ci la dem beneen école dem sekaas yi man ma dem Azhar daanaka loolu moo ñu teqale waaye bi yàgg suñu ànd yàgg na lool muy jàmbaar loolu def franco ab jàng na ci ba am bac doon na jàngale tamit ci école yi di yëngu ci jàng ak jàngale kon moom mooy suñu gan gu tedd tey ji moom lañ fas yéenee dalal kon xam naa dañ koy jox euh, mu présenté wu rek bu ko defee après ñu doog a ñëw présenté thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanee bisimilah sëñ Daawda aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi zilmanni walkaram wasalaatu wasalaam ala nabiyina muhammadin almabuus lil insi wal jaan wa ala alihi al asfiya wa sahabatihi al awfiya wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi diin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñu ngi lay ziare bu baax. Mm, euh, di kontaan bu baax a baax ci dalal gi nga xamante ni dalal nga ñu ko ci Majmahun Nurayni TV. Mm-hmm. di ziare bu baax euh, daayira Majmahun Nurayni di rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ni tey ñu ngi koy def. di leeral euh, njàngaleem lislaam di leeral njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di leen siyaare bu baax a baax rawatina nag sunu caméraman yi nga xamante ni ñooy tax ba nit ñi dañ mën di seetaan man di diñ déglu mel ni sëñ Baara ak mbokk mi mu àndal sëñ Mbàkke leen siyaare bu baax a baax di siyaare waa daayira yi Majmahun Nurayni ñëpp waaye niki noonu tamit di siyaare bu baax it euh, mbokk yi nga xamante ni mbokk julli yi nga xam ne ñu ngi seetaan waaye rawatina mbokki taalibe yi di leen siyaare bu baax a baax waaw kay jërëjëf sëñ da comme niñ ko waxee woon rek ñu ngi lay delloo siyaar bu baax a baax a baax kon xam naa dañuy ñëw ci waxtaan wi comme niñ ko diggee woon mbokk taalibe yi ci émission Jaalibatul dul di fas yéene di dalal ay boroomi xam-xam di traité ay thèmes yu am solo yoo xam ni dina nit ñi dinañ ci mën a jariñu tey nag suñu thème dafa ñëw ci euh, aqidatu ahlu sunna wal jamaa hinda cheikhul xadim maanaam ahlu sunna wal jamaa seen pas-pas nan la ko sëñ tubaa gisee ak nan la ko sëriñ bi dundee ak nan la ci digal taalibe yi ak tawjihaat yi nga xam ni def na ko ci moom lañ fas yéenee waxtaane dafa doon thème bu am solo nag bu mat a bàyyi xel ndax buñ nee sëriñ bi dafa ñëw ngir yeesal diine mooy lil Mustafa nawaytu maa jaddidu sunnatuhul xarra wa inni ahmadu dafa wax ni dama fas yéene yeesal diine yonent bi sallallahu alayhi wa yeesal sunnaam si mu jaddid nag saa yu ñëwee buy yeesal du indi lu bees waaye day fekk lu fi ràppoon mu mu mu mu mu mu defar ko ba mu baax nit ñi mën cee jariñu sëriñ bi nee nag sunna su si sa saa sallam dafa seen yeesal buñ nee tamit euh, ahlu sunna wal jamaa maanaam mazhab la maanaam benn parti la boo xamante ni dañoo am pas-pas te seen pas-pas doon euh, tegu ci alquran ak sunna loolu nag lañ fas yéenee tey waxtaane sëriñ bi moom taxawaayam ci mazhab boobu lan la ak lan la ci diggal taalibe yi ak moom lan la ci bind ak nan la ko dundee moo tax xam naa thème bi dañ koy tënk ci ñetti ñetti tomb wala ñeenti tomb tomb bu njëkk bi dinañ leeral ma mafhumul aqida lan mooy pas-pas pas-pas mooy lan ñaareelu tomb bi dinañu leeral indi ci lenn ci ay mabadi u ahlu sunna wal jamaa seeni principe ñetteelu tom bi dinañ ci leeral euh, ahlu sunna wal jamaa maanaam fii fikri cheikhul xadim mafhum euh, ahlu sunna wal jamaa fii fikri cheikhul xadim sëriñ bi gis-gisam xalaatam ci ahlu sunna wal jamaa ñeenteel tom bi di dernier bi dinañ leeral sëriñ bi nan la dundee sunna ak tamit mazhab bi nan la nan la ko dundee ahlu sunna wal mooy mu maarasatu cheikhul xadim fii mazhabi bi sunna wal jamaa kon loolu mooy thème bi kon suñ daawda dañuy fas yéene ñëw ci yow bu ko defee suñu tomb bu njëkk mooy bi ñu bëgg nga leeral ñu ko defal ñu ci benn benn talxiis benn régime bu ndaw mooy mafhumul aqida pas-pas bu ñu ko bëggoon comprendre mooy lan. Euh, jërëjëf euh, Baye Zeyd ci laaj bu am solo boobu pas-pas nag buñ ko waxee mooy lu nit ki fas ci xolam dogu ci hmm. euh, bu dee ci diine mooy lu ñu fas te jëf ci ñëwagul. Hmm. pas-pas islam yi nag mooy mbooleem principe yu nu dajale mu aju ci gëm yàlla ak malaayka yi ak téere yi ak bis bu mujj ba ak dogal ak lu aju ci jëmm yàlla ay meloom ak ay jëfam ak melokaani yonent yi lu war ci ñoom ak lu jomb ci ñoom ak euh, lu aju ci mbiri nabi yi mm-hmm. euh, waaye bu dee ci euh, bu dee ci ahlu sunna wal jamaa nga xam ne thème boobu moom la ñuy traité mm-hmm. ñoom am na yeneen tur yeneen istilaaxaat yu ñu ko tuddee mm-hmm. masalan ak tawxiit ak li ñuy wax usulu diin ak fikul waaye islam ci boppam moom euh, benn pas-pas la taxawal bu tegu ci alxuraan ak sunna waaye nag bi fi yonent bi alayhi salaatu salaam jugee nag ci la wuute yi daal di tàmbali di tàmbalee ci li ñuy wax xilaa xilaafatu euh, siyaasiya waaye nag ci tàmbali loolu mi ngi amee nag ci tàmbalimaawu euh, xilaaf ak Seydina Ousmane ak tàmbalimaawu Seydina Ali karamallahu wajhahu boobu li xewoon mooy alxilaafatu siyaasiya mooy jullit ñi tàmbali noo am tàmbali na noo am mm-hmm. maanaam ak wuute ci li ñuy gouverner ci ni ñuy doxalee la ñuy tëralee mhm. ak it euh, saxaaba yi ci boppam futuxaat yi nga xamante ni def nañ ko mhm. maanaam futuxaat yi nga xam def nañ ko muy dugal ñu bëree bari réew yu bari ñu dem fa dugal leen ci biir dugal leen ci lislaam mhm. loolu euh, bokk na ci li tax maanaam euh, ñu bëri ci julli ñi daal di am nag wuute daal di am ci seen ci seen biir waaw waa koy jërëjëf suñu daaw da comme ni mu ko leeral rek moom dafa ñëw dugg ci mafhumul aqida mubasharatan directement te leeral yi am na solo leeral na ni maanaam pas-pas mooy loo xam ni nit ki da koy fas ci xolam dogu ci leeral na ni tamit mooy loo xam nit ki da koy fas waaye jëf ji ñëwagul euh, leeral na euh, pas-pas bu dee ni ko lislaam gisee mooy ay principe yoo xamante ne dañ koo dajale mu aju ci yàlla mooy ni ñuy ni ñuy gëmee yàlla gëm malaayika yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm bispenc yi gëm dogal leeral na tamit Euh, euh, dinañ ko woowee yeneen tur muy at tawxid wala ñu koy woowee fequl akbar boo xoolee nee na li tax maanaam pas-pas euh, bari nag am ak wuute mooy bi ci njëkk mooy xilaafaatu siyaasiya yi nga xam ni bi fi yoon saa jugee moom moo moo am mooy asna xilaafati sayidna Usman wala wala bidaayatu xilaaf naam bidaayatu xilaafati sayidna Usman wa asna xilaafati sayidna Ali radiyallahu anhu daana ko kon Seydina Ousmane bi mu toogee daanaka pas-pas kon ci la commencé wuute ndax ñi ànd ak ñi commencé firaq yi commencé juddu bi Seydina Ali nag toogee ci la pas-pas yi gën a gën a wuute maanaam firaq yi gën a am mooy euh, alxawaari ñi nga xam dañoo jénn àndatuñu ak Seydina Ali achian ñoom it ñi nga xam te ne ñi parti bi dañoo ànd ak Seydina Ali parti bi ànd ñoom ar rawafid xeet yooyu yëpp daanaka kon ci la ci la firaqul islam yi commencé tàqali ko léegi nag kenn ku ne commencé am ay say say principe commencé am say pas-pas looloo tax nag moo tax Sëñ Tuubaa teel ñoo prévenir maanaam teel ñoo leeral ni kon yéen yéen jullit ñi war ngeen a am pas-pas bu rëy te war ngeen a xam ci ban mazhab ngeen wekku seeni seeni pas yow loolu yaakaar naa buñ ñëwee ci biir euh, waxtaan wi dina gën a leer bu baax a baax a baax kon jërëjëf Sëñ Daawda point boobu maanaam am na solo lool léegi buñ ñëwee ci ñaareelu point bi bu dee ahlu sunna wal jamaa bi nga xam ni moom lañu sëriñ bi sax diggal moom la digal taalibe yi pour ñu topp ko am nañu am nañu ay principe mm-hmm, yaakaar naa principe bi almabadi wa raisiya mm-hmm. principe bi bari na loolu waaye xëy na dañu ci tënkal yenn yenn principe bi rek yoo xamante ni gars yi dañ ko mën a dégg baax a baax baax bisimilah tafadal waaw ah, jërëjëf Baye Zaid mm-hmm. ci ñaareelu question bi euh, mel ni nag bu ñëwee ci almabadi ar rais muy gëm-gëmu maanaam euh, ahlu sunna wal jamaa euh, bokk na ca Euh, alxasanu ma xasanahu saran wal xabiixu ma xabaxu saran mm-hmm. maanaam ñoom dañ ni euh, li dagan mooy li nga xamante ni sariya moo ko daganal waaye li araam mooy li sariya daal di araamal mm-hmm. kon loolu day wane ne kon ñoom ñu ngi ci alxuraan gu wér ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. waaye nag loolu ba tey euh, muxtasila yi am nañ ci wute ak ñoom ndaxte xilaafan lil muxtasila allazina yaxtabiruna al aqlu misanan li xasan wal xabiix am nañ ci wute ak mu'tazila yi ndax mu'tazila yi ñoom euh, nit ki ci li dagan ak li araam ñoom dañ koy nat ci seen xel mm-hmm. seen xel moo leen di wax li dagan ak li araam mm-hmm. waaye bu ñëwee ba tey it ci principe bu ba tey seen principe muy ahlu sunna wal jamaa euh, bokk na ci ñoom dañ ni euh, murtakibul kabir isa lam yetub fa amruhu mufawwidun ila masyatillah mm-hmm. ñoom dañ ni ki nga xam dafa def bàkkaar bu mag a mag bu tuubulee bu faatoo Euh, waaw ñoom dañ ni dañ ni maanaam ki nga xam te ni dafa def bakkaar bu mag a mag mbiram dañ koy dellowaat ci sunu borom subhanahu taala ci coobare sunu borom ndax inna allaha yaxfiru zunuba jamian mhm. sunu borom moo jégale bakkaar yëpp waaye loolu ba tey am nañ ci wuute ak euh, xawaari ji ba tey mhm. ndax xawalil xawaari ji allazina na bi anna zanba yuxruju min al milla mhm. xawaari ji moom dañ ni ki def bakkaar bu mag kooku génn ci diine ki def bakkaar ci diine kon ñoom euh, ahlu sunna wal jamaa kon wute na nag lool kon ak euh, firax yi firax islaam yi ñu mel ni xawaari ji ak muxtasila yi ak murja yi waaye ni ki noonu ba tey it muxtasila yi ñoom muxtasila yi dana wax ba tey daan ni allazina yaquluuna bi xuludil murtakabil kabir fi naar mm-hmm. wala murjiya allazina yaquluuna bi anna laa yadru mahal iman maxsiyatun maxsiya mm-hmm. bokk na ci euh, ba tey it ñi li muxta waa muxtasila yi muxtasila firax muxtasila yi li wax ñoom mm-hmm. ñoom dañ ni ki def bàkkaar day day waral bu faatoo mu sax ci sawara mm-hmm. day waral mu sax ci sawara mm-hmm. waaye ni ki noonu tamit murjee yi ñoom daan ni euh, ki nga xamante nii dafa gëm bu defee bàkkaar du ko wàññi dara mm-hmm. te loolu wute naag alxuraan ndax su borom bi mu ne allazina amanu lu mu ci teg wa amilu saalihaat bu ngeen ma gëmee da ngeen di jëf da ngeen di pratiquer kon murjee yi ñoom seen gëm-gëm loolu mooy je un musulman non pratiquant gëm naa waaye man du ma du ma jëfe dara ci li yàlla digle kon boobu pas-pas mu waa murjee yi loolu du pas-pas bu wér waaye ba tey bu ñëwee ba tey rek ci euh, pas-pas ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoom ba tey bokk na ci seen pas-pas dañ ni laa yajibu ala llaahi shay'un wa fi'luhu daa'iratun bayna al fadli wal wal adl mhm. yàlla suñu borom moom amul dara lu war ci moom ndax lépp lu muy jëf rek da koy jëf ci ngëneelam ak maanuteem mhm. waaye nag loolu wute nañ ci ba tey ak muxtasila yi ndax muxtasila yi dana wax ni euh, lil muxtasila alxaailina bi wujubi uh, salaaxi wal aslax mm-hmm. wa bi wujubi isaabatil muta mutin wa muaqabatil as mm-hmm. uh, muxtasile ñoom dañ ni war na ci yàlla bu nit ki defee lu baax mu fay ko li gën a baax mm-hmm. waaye war na it mu fay ki def lu baax waaye mbugal ki nga xamante ni daa def uh, bakkaar waaye ba tey it ci mabaadi ahlu sunna wal jamaa xaqiiqat ahlu sunna wal jamaa ci seeni i ñoom daganal nanu ru'yatullahi taala fil axira jaizun dañ ni gis yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dagan na bi laa bi laa tak bi laa takayuf maanaam gis yàlla ci yomax yaam mhm. gis yàlla ëllëg lu dagan la mhm. bi laa takayuf ci ci lu dul naka laak nan la mhm. waaye loolu nag wute nañ ceeg muxtasila lay ba tey ndax muxtasila yi ñoom noo dàq loolu dañu yàlla kenn du ko gis ndax loolu day day day nekk musabba kon loolu na indi woon ci mabaadi yi jërëjëf sëñ Daouda kon loolu leer na yaakaar naa mënuñ cee dool dara boo xoolee principe yi mu doon leeral yu mat a bàyyi xel defee comme li ma waxee rek ci firaq yi kenn ku ne ak sa pas-pas li tax sëñ Tuubaa toppaloo ñu mazhab bi ci wàllu pas-pas moom moo ko xam ndax gis nga firaqul murji'a li ñu li ñu fas ci yàlla alxawaarij li ñu fas ci yàlla al mu'tazila li ñu fas ci yàlla nga xam dernier principe bi nga mujjee ndi mooy ñoom dàq nañ ru'yatullahi fil aaxira ñoom mu'tazila dañuy lu yom xiyaam yàlla kenn di ko gis ndax bu fekkee da nga da ko gis rek Euh, ñoom ndax ñoom sifaatul maani yëpp dañ ko dàq suñu borom boo xoolee nag ahlu sunna wal jamaa ñoom lépp yoon saa sallam wax ci xadis alquran indi ko dañ koy gëm ni ko alquran indee ak ni ko yoon saa indee te duñu xool ban melokaan lay suñu borom di feeñee lay la la suñu borom di feeñee ëllëg yoomal xiyaam ba nit ñi di ko gis ndax yoon saa mi nga wax ni euh, suñu borom da ngeen ko gis ëllëg yoomal xiyaam comme ni ngeen gisee weer wi boo xoolee almurji a tamit euh, gis nga ñoom ni ñu dàqee murtakibul kabira ci def bàkkaar bu mag dañ ñu ñoom ki def bàkkaar bu mag maanaam kooku day sax ci sawara suñ borom du ko jéggal te bu dee pas-pasu ahlu sunna wal jamaa dañ ñi murtakibul kabira amruhu mufawadun ilallahi subhanahu wa taala ki def bàkkaar mag suñ dañuy bàyyi mbiram suñu borom bu ko neexee inchaa euh, azabahu wa inchaa euh, yaxfiru yaxfara euh, lahu suñu borom bu ko neexee jéggal ko bu ko neexee mbugal ko te loolu mooy pas bu wér kon boo xoolee principe yi bari na li nga xam ne moo wuutale ahlu sunna wal jamaa ak yeneen firaq yi bari na loolu waaye loolu loolu lañ ci tànn rek indi ko pour nit ñi bu ko defee ku ci bëgg a am ay delluwaay yoo xam te ni euh, yu yu baree baree bari la boo xoolee téere tawxiid yi dinañ ko gën a leeral baax kon dañuy ñëw ci suñu troisième point nga xam ni mooy point bi gën a yaatu muy aqidatu ahlu sunna wal jamaa fii fikri Cheikh Ahmad Bamba maanaam pas-pas ahlu sunna wal jamaa ci xalaatu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ñoom moom nan la xalaatee ahlu sunna wal jamaa boo benn wax na ko ci ay mbindam jëfe na ko ci eh, ay ay melokaanam tamit feeñ na ci loolu bu baax a baax a baax kon Sëñ Daaru da ngay ñëw ci point boobu nga gën ñu ci indi ay leeral bu baax a baax bisimilah waaw ah, jërëjëf eh, Baye Zaid ci ñetteelu question bi mel nag sëriñ bi moom eh, pas-pasam ci aqidatu ahlu sunna jamaa leeral na ko ci ci ay téeréem lu bëree bëri mm-hmm. moo tax euh, kaana Cheikh Ahmadou Bamba yuminu bi xaqidati ahli sunna wal jamaa mm-hmm. wa yadduhu ilayha fi kitaabihi allati bayana fiha bi wuduxi ixtiqaadihi wa mazhabihi fi lhibadat wal axlaaq mm-hmm. sëriñ bi nekkoon na daan euh, amoon pas-pas bu wér muy pas-pas ahlu sunna wal jamaa te loolu feeñal na ko ci lu bëree bëri ci ay ay téeréem mm-hmm. wane ko ci pas-pasam wane ko ci mazhabam waaye wane ko ci jaamu yàlla wane ko ci jikkoom ba tax muy def am na ab bayit boo xam te ni wax na ko moo tax suñu daan fa huwa ashari fi l aqida maliki fi l fiq wa suufi fi suluk mhm. maanaam pas-pasu euh, al ansari ñooy sama pas-pas ñooy sama pas-pas waaye nag imaam malik ci boppam mooy mooy mooy sama ngir ci wàllu islaam ci fiq islaam waaye nag tasawuf mooy sama soobuwaay mhm. waaye te te jubluwaayam te royuwaayam di référence am mooy imaamu Junayd mhm. waaye te loolu li ko gën a dëgëral ba tey ñu jàllaat ci du sëriñ bi ci moom ni mu gisee ni mu xalaatee maanaam euh, pas-pasu ahlu sunna wal jamaa sëñ Tuubaa ba tey di leeral di wax naan haza wa inni yawma zu ridaa'i billaahi rabban xaqa xuqa bi sanaayi ma gërëm naa gërëm naa yàlla gërëm naa ne yàlla mooy sama borom nangu naa ne yàlla mooy sama borom wa bi wa bi hudal islaami diinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyina rasulun gërëm naa ne yàlla mooy sama borom gërëm naa ne islaam mooy sama diine te mooy sama yoon waaye yarante bi mooy sama yarante te mooy sama rasul wa bi kitaabihi wa bil bayti dalil wa xiblatin li xayriha lastu amil téere yàlla bi mooy sama tegtal waaye kaaba ga mooy sama mooy sama jubluwaay ci laay jubloo xibla wa bi aqaidi sunni yi asarif aqaidi fi haqi rabbina latif waaye pas-pas euh, su imaam sunu si nag di pas-pas ahlu sunna wal jamaa mooy sama pas bu wér ci sama borom mhm. wa bi tafaqu imaami maliki tafaquhan yamnahu min mahaliki mhm. waaye nag euh, fiqu imam malik muy diine fiqu imam malik ci boppam mooy sama diine ci wàllu lislaam ci fiqu islaam kon loolu dangay ngay dégg ni kon sëriñ bi kon moom euh, gis-gisam maanaam ci euh, xaqidatu ahlu na wal jamaa ci pas-pas bi nga xamante ni am na ko wane ko ci mbooleem euh, ay téeréem wane ko it ci ay taalifaatam yu bëree baree bëri waaw kay jërëjëf suñu Daawda ah, boobu point boobu leer na bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee woon rek muy sëriñ Tuubaa moom pas-pasam mooy ahlu sunna wal jamaa mooy ashariyun fi fil aqida wa wa maalikiyun fi fi fi mazhab wa wa wa junaydun fi fi fi suluk muy sëriñ bi aqida ahlu sunna wal jamaa imaamul ashari abu musa al ashari yu la ci topp bañ na ko moom la jàngale ci euh, euh, ci wàllu njëlbeenu tazawud sixaar muy muy muy tawxiid yi mu jàngale tazawud subaan boo fa demee imaamu sanusi tamit mooy waraqaatul euh, imaamu sanusi mooy umul baraahin téere boobu defe naa moom la way tuddee ko mawaahibul xudus nga xam ne lépp tawxid la ciy jàngale kon Sëñ Tuubaa yaakaar naa lëndamul de suñ Tuubaa ku leer la ndax boo xoolee leeral na ni pas-pasam muy pas-pas bu wér leeral na ban ngir la topp muy ngiruk imaam Malik leeral na tasawuf ni mu ci toppee nga xam te ne tasawuf bu tegu ci alquran ak sunna la muy tasawuf imaamul junaydi moom la moom nga moom nga wax sànq ci moom nga firi sànq ci bayitam mooy gërëm naa yàlla muy sama muy sama yonent muy sama sama sama borom ah. ma gërëm yonentu saa muy sama yonent ma gërëm kaaba ga sama xibla ma gërëm alquran muy sama téere imaamu sanusi yi mooy mooy mooy sama pas-pas imaamu sanusi laa yor mooy mooy sama pas-pas fequl imaamu malik laa yor mooy mooy sama mooy sama feq kon kooku yaakaar naa képp ku ko wax ni day dafa woote bidaa wala ay taalibeem nga fas yéene leen jëmaliñ ci bidaa tooñ nga ko bu wér a wér a wér a wala ma xam ne dangaa jàngul am mbindam kon yaakaar naa ab murit moom ku ni ab murit toppul sunna wala sunna buñ ko xasee wa tudd benn jamaa yaakaar ne ñoom rek ñoo koy dund nax nga sa bopp wala dangaa yërul mbindum sëriñ tubaa te loolu képp kuy gëstu nag war nga war ngaa gëstuwaat mbindum sëriñ bu baax a baax a baax kon leeral nga bu baax a baax a baax kon sëriñ tubaa taxawaayam ci euh, position ci mazhabu ahlu sunna wal jamaa kon dañuy ñëw ci euh, dernier point bi muy aqidatu ahlu sunna wa wal jamaa fii mu maarasaati a Cheikh Ahmad Bamba Sëñ Tuubaa dund na ko man dund na ko leeral na ko ci ay taalifam yaakaar naa ba ci ak njabootam sax tey fi mu toll ni day jàngale tawxiid waaw comme ni nga ko waxee woon rek nga xam ne boo xoolee ak njabootam ñii ñi mu tuddee Abdul Ahad ñii Abdul Xaadir Abdul Samad nga xam ni turi suñu borom yi sell yi la leen di dàqantale ñii mu tudd leen ay yeneen mm-hmm. a Cheikh Saalihu a Cheikh Chouaïbou mm-hmm. boo xoolee ba ci dëkkam mi day jàngale tawxid suñ tubaa kon léppam la mm-hmm. kon ab murit murit kenn du ko féetale ci bokkaale ab murit du bokkaale yàlla mukk yi day jàngale tawxid daarul minan daarul qudus daarul mannaan daarul mooti daarul salaam nga xam ni loolu yaakaar naa ci moom rek lañ ko miinee ci koo day jël turi suñu di ko tuddee ay dëkk kon kooku léppam tawxiit la ba pare mu def ay taalif yoo xamante ni dafa bokkut ak li mu bind ci euh, ci ay maanaam ci genre bañ la ko ay narmam ay daanaka lépp téere xam-xam la muy tasoo tasoo tasoo subaan tasoo sixaar nga xamante ne mawaahibul xudus lépp tawxid lay jàngale kon sëriñ bi doonul koo xamante ni dañ koy dañ koy làmbatu moom mbiram dafa leer nañ bu ñëwee nag moom nu mu dundee nu mu dundee ahlu na wal jamaa loolu suñu daaw la point boobu ngeen lañ bëgg nga gën ñu ko leeral baax a baax a baax waaw bisimilah. ok jërëjëf. Hmm. ci beneen laaj bi. mel ni euh, boo xoolee rek Sëñ tubaa moom pas-pasam ak ni mu dundee ni mu pratiqué. Hmm. Euh, aqidatu ahlu sunna wal jamaa. waaye boo xoolee moom sëriñ bi rek turam rek. Hmm. dafay delluwaat ci tawxiid. ndax boo xoolee Sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñu ngi koy woowee turam mooy Ahmed ibn Mohamed ibn Habiballahi al-Makki. waaye moom fu muy tudd boppam ci xasi xasidaam yi rek Abdullahi lay tuddee boppam. wa xadim rasul ndax boo demee ci xaside gi ñuy wax euh, euh, jaalibatul maraaxib da ngay dégg bi muy présenté dani yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu mhm. xadima man sumaatoo muhammadu mhm. kii wax daal mooy jaamu yàlla mooy jaamukatu yàlla bi tey di liggéeyal yarante bi alayhi salaatu wasalaam mhm. kon Sëñ Tuubaa kon maanaam turam rek day dëppale day wane tawxiid gi nga xam ne ci la nekkoon muy wéetal gi mu wéetal boromam waaye teg teg tànkam gi mu teg tànkam ci sunnay yarante bi alayhi salaatu wasalaam ay doomam tamit tawxiid da cay feeñ ndax boo xoolee tey euh, di wane ni moom Sëñ Tuubaa ci sunna ju leer la nekkoon mm-hmm. tey njaboot gi mu njëkk am euh, boo xoolee yant bi saa la ko tuddee muy suñu Muhammadul Moustapha mm-hmm. waaye ni noonu it mu tuddee it euh, sëñ Moutala tey mu tuddee ko Mouhamed muy sëñ Mouhamadul Moutada mm-hmm. tura tamit sëñ Mouhamadul Bachir it mu tuddee ko sëñ mu tuddee ko yant bi salaa salaam kon yooyu yëpp day delluwaat ci moom Sëñ Tuubaa maanaam pas-pasam ci tawxiid ak it ni mu tegee tànkam ci sunna yerante bi alayhi salaatu wasalaam te loolu leeral na ko ci ay euh, bind yi bëree bëree bëri mm-hmm. ndax da ngay dégg mu ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatoo xarra wa inni ahmadu mm-hmm. man damaa ñëw di yeesalaat euh, sunna yerante bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. waaye niki noonu sëriñ bi feeñal na ko it ci ci ci ay mbindam bu baax a baax te loolu dinañ ci ñëw yatajalla zalika at tajsid fi jawaanibi mutaaddida minha muallafatihi allati tatanaawalu fiha euh, hazihi al aqida wal baabul awal fi tazawudu sixaar wa tazawudu subaan mhm. sëñ bi moom li tax li gën a dëgëral ni moom ku pratiquer euh, aqidatu ahlu sunna wal jamaa mooy téere yi mu taalif bokk na ci Mawaahibul Xuddus mhm. comme ni nga ko waxee sànq xam imaamu Sunusi tey moo ko bind sëñ Tuubaa daal koy def ci synthèse bind ko mhm. def ko nazm way ko tuddi ko Mawaahibul Xuddus waaye turu téere bi rek di delluwaat ci tawxiid gis nga Mawaahibul Xuddus ay may sunu borom mi nga xam ne mooy aji sell téere boobu rek day day waat maanaam tawxiid kon Sëñ Tuubaa génnul tawxiid ci tawxiid rek ci la ci la nekkoon mm-hmm. waaye ni noonu téere boobu mu bind tudde ko Tazawudu Sixaar nga xam ne ma ngi cey jàngale maanaam aqsaamu diin mm-hmm. muy iman islam ak ihsaan waaye ni ki noonu tamit Tazawudu Subaan tamit kazalika waaye nag euh, amma kitaabuhu fil fiqh nag falam yaxruj fiha an mazhab imam Malik mm-hmm. euh, amma nag Sëñ Tuubaa li mu taalif ci wàllu fiqh islam Sëñ Tuubaa mës ta génn mazhab imam Malik ngiru imam Malik te loolu dina ko leeral wa kaana min wasayaahu fa amartukum bil aleykum bil malikiya fa innaha mutaharatun munawara moo tax bokk na ci si ndénkaane moom si Amadou Bamba daana wax naan maa ngi leen di dénk ngeen jàpp ci mazhabu imam malik ci ngiiru imam malik ndax moom ngir gu laab la yor ngiir gu leer moom la yor wa maa katabu fi l axlaax nag wa tasawuf kaana ala saadati ala tariqatu saadati suufiya as sunniyin li nga xam ne nag moom la bind ci wàllu jikko ak wàllu tasawuf moom Sëñ Tuubaa da ko royee ci mu tasawufu na yi fi jiitu woon te teg tegal seen tànk ci sunna yenn saa salaam ak alxuraan mm-hmm. moo tax euh, Euh, min am sa moo tax suñ tubaa daal di wax ni daal di way def ay way daan ni aimati fil fiqil malikil ali mhm. wal xanafi wa saafihi wal xanbali mhm. samay jiit ci euh, fiqul islam ka ci jiitu mooy imaam malik ak xanbal ak saafi ak xanbal ak ak abu xanifa mhm. te loolu defe naa indi na ko ci way na ko ci euh, xasida ak sindindi bi maliki zil mazaya saafihi abi xanifatal ahmadal mahmudi yàlla kon suñ tubaa kon ci pas-pas bu leer nañ ci la nekk waaye niki noonu di gën a bu baax rek ci Serigne Touba pas-pas gi nga xamante ni ni mu mu maarasa ni mu pratiqué aqidatu ahlu sunna wal wal jamaa ni mu ko pratiqué mm-hmm. nga xamante ni day feeñ ci jëmmam feeñ ci mbindam feeñ ci feeñ moo tax ba tax na sëñ di wax rek di waxaat yeneen i bayit di leeral moom pratique gi mu pratiqué euh, pas-pasu ahlu sunna wal jamaa sëñ bi daan ni euh, awalu waajibun alal muridi taxsilu zaadihu min a tawxiid li njëkk ci li war murid bi mooy mu daal di am tawxiid kon nag sëñ Tuubaa kon sëñ tubaa sax li tax mu gën a neexee waxtaane mooy sëñ tubaa lépp loo koy waxal rek day am ay lu ko mën a layal ndax moom daa bind daa bind daal fi bàyyi mm-hmm. loo tax sëñ tubaa gën a neexee wax waxtaanal mm-hmm. waxtaane kon moo tax mu daa ne kon li njëkk li war ci murit bi mooy mu am tawxiid mm-hmm. xablas ci xaalihi bil infiraadi bi wax waxdahu bil jihaadi la njëkk nag muy soxlawoo di weet moo xam muy tudd yàlla moo xam muy jihaad kon sëñ tubaa li mu digal taalib bi mooy mu am pas bu wér ci suñu borom subhanahu wa taala waaye nag muntahijan mazhabu ahli sunna mahal jamaati wa tilkal junna waaye nag mu soobu nag ci mazhabu ahli sunna ànd ak uh, mbooloo ma waaye nag ngir lan is zulumaati ko fu takofu anwaara tibaahil haadi ndax sëriñ bi dafa wax ni uh, lënd mi pas-pasu biddaa dafay dox day dafay day day dox ni uh, diggante nit ki topp leer sunna mm-hmm. moo tax nag sëriñ bi kon di digal ñu topp nag maanaam xaqidatu ahlu sunna wal jamaa ndax ñoom ñoo sukkandiku ci alquran ak sunna te loolu boo xoolee Sëriñ Tuubaa leeral na ko ci ay téeréem yu bëree bëree bëri hmm. ngay dégg mu ne duumu ala sunnati wal ijma baxda kitaabillahi bi ci bi bi cimaa yi hmm. te loolu nag te Sëriñ Tuubaa it maanaam ku bañoon euh, ëppal la ak yeesal te loolu boo demee ci téere yu bëri wax na ko lu mel ni xasida gim taalif tudde ko xadaayul fadaayil hmm. ba fa dee di nga wax naan muy ñaan suñu borom naan ko waxul liya bi an akuna muqsitan fi amriya Mhm. wal taqini tafrita wal ifrata mhm. yow sama borom na nga ma musal ci ëppal ak yeesal te ma nekk ku diggu doomu ci topp say say ndigal mhm. te Sëñ Tuubaa ba tey boo demee ci xasida Matlabul Fawzayni di leeral ni moom ku dund sunna la waaye ku pratiquer pas-pas euh, euh, ko gën a firndeel mooy boo demee ba tey rek ci Matlabul Fawzayni da ngay dégg foofu mu naan min ka aromul yow ma an akkuuna mi man awaw li xayrika rukuna wa an bi nahjil Mustafa sunnatil bayda yaa man istafa yow sama borom nanga ma def ma nekk bañkat nga xam ne du ma sukkal kenn du ma raamal kenn kurul yow mhm. yow rek laay jàmm waaye te nga may ma nag ma ma ni coow rek ci topp sunna yerante bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu lu jar a bàyyi xel la mhm. kon loolu taalibe yi ci boppam war nañ koo mën a xam bu baax a baax xam li sëñ Tuubaa woote te mooy tawxiit wéetal borom bi subhaana taala waaye teg teg sunu tànk ci sunna yerante bi alayhi salaatu wasalaam mhm. waaw koy jërëjëf sëñ Daawda ah, kàddu yi am na solo loolu macha allah leer na mm. comme ni nga ko waxee rek sëriñ bi moom léppam dafa leer rek waaw loolu li sëñ Moussa daan wax koo xamante ni dañ naan la mi ngi nii ay mi ngi ñi ngi nii dëkkam bi mi ngi nii kooku yaakaar naa dara lëndëmul ci moom léegi li xaw a doon jafe bi rek mooy tey ñi nga xam ni maanaam yenn baat yi far yi nga xamante ni yenn murid dañ koy faral di jëfandikoo xëy na looloo loolooy waral tey ñu ñuy dëkkal fu ñu dëkkul mm. waaye koo xam ne dañuy aimat yi fil fiqhi maalikil ali bu dee mazahibul arbaa nga xam ni ñoo ci gën a siw xam nga mazhab bi bari na mazhab bi bari na loolu ëpp na ñeent ñu ci gën a siw mooy imaamu abu xanifa imaamu malik imaamu shafii ahmad ibnu hanbal waaye sëriñ bi dani sama samay samay samay aima ñi nga xam ne ñooy samay imaam ci mazhab bi ima imaam malik laaj topp teewul bàyyi ma ja topp ma imaam malik rek bàyyi ko de waaye shafii sa damay damay jëfandikoo mazhabam Abu Hanifa damay jëfandikoo mazhabam euh, Ahmad ibnu Hanbal damay jëfandikoo mazhabam nga xam ne xoolal kooku tey maanaam ni mu ni mu ni mu sëriñ bi ni mu ni mu ñëwee maanaam yamale ak tawasut gi mu indi maanaam tawasut gi mu indi ngir bëgg taalibe yi digg doomu ci nga xam te ne day wane ni foo jàpp baax na waaye teewul leeral na mazhab leeral na nga xamante ni mazhab bi nga xamante ni ci lay ci la gën a sukkandiku muy mazhabu imam malik bu dee ci wàllu pas-pas mu leeral ni ashari yi la ci topp bu dee ci wàllu tasawuf mu leeral tasawuf sun sunniyu la nga xam imaamul junay di la ci topp kon yaakaar naa loolu moom nga leeral ci ay ay bayit yi mm-hmm. waaye bi ci beneen bayit bi ci gën a am solo mooy muntahijan mazhab ahli sunna ma jamaati wa tilkal junna loolu taalibe yi la fa la fa mooy taalibe yi dañoo war a soobu mazhab ahlu sunna wal jamaa mooy maanaam bu dee seeni pas-pas dañ koy topp bu baax a baax nañ topp mazhab ahlu sunna wal jamaa mm-hmm. te yaakaar naa loolu neex naa topp ndax euh, lim bind ci tasawuf si xaar rek ku ko pas ak lim bintal subaan ak mawaahibul xudus doy nga sëkk am nga pas-pas bu wér jëratul ngay xool leneen lim bind ci feq tamit noonu booy baabu saani fii tazoor sixaar wala baabu saani fii tazoor subaan wala jawharu nafis loolu yaakaar naa tamit bu dee ci feq doy na sëkk nit ki bu ko jàngee dina ci xam diinam bu baax a baax a baax a baax kon yaakaar naa Sëriñ Tuubaa moom li mu li mu li mu li mu li mu leeral taalibe yi tamit bokk na ci mooy awalu waajibin alal muridi taxsilu zaadi zaadihi min at-tawxiidi mooy ab murid moom balaa def dara na am tawxiid pas-pas bu wér a wér a wér ndax ab murid li ko tax mooy isil murid laa yurid abada xayra rahman xaysu xasada moom ngërëmal yàlla ko tax a jug te ngërëmal yàlla pas-pas bu wér nag da cee jiitu ba pare kon boo xoolee bu dee man manhaju at tarbawi bi nga xam te moom la teg bu dee saxaaba yi gis na sëriñ bi ni mu ci taxawee a asaxba rasulullahi inni xadimu muhibban lakum fillahi wallahu yaklaw te pourtant am na ci ñoo xamante ni gëm nañu yàlla gëm yoon saa sallam waaye gëmuñu saxaaba yi mm-hmm. wala wala baadu saxaaba lañ gëm mm-hmm. comme chia yi nga xamante ne dañuy ŋaañu Seydina Omar ñii di ŋaañu Seydina Aboubacar ñii di ŋaañu Sayyidatu Aïsa di ko tuumaal lu ñaaw mm-hmm. te sëriñ bi taxawaayam ci saxaaba yi gis nga loolu la ci wax bu nee Seydina Muhammadin wal ali wa sahbi fil xaali wal maali fi mu toll ni am na ñoo xamante ne bu ñu nee allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa ala alihi rek la ñuy yem ak yi waa këram rek waaye sax bii sax duñu fa am na ñoo xam te wu lañu benn parti boo xam te ne considéré wuñu yenn saxaaba yi comme ay jullit hmm. waaye kon Sëñ Tuubaa kon da ngay xam ne kon kii mooy ki suñ borom yabal ngir mu yeesal lislaam hmm. ndax bi mu ñëwee saxaaba yépp la yemale li yoon saa salaam waxoon daan dee leen maandu ci saxaaba yi même saxaaba yi sax li dox seen diggante ci wàllu xarek yooyu yëpp da nga cee da nga ciy da nga ciy maandu rek amal njortul rafet ci ñoom rek gëm ne ñoom ñëpp lislaam moo leen taxoon a jug hmm. kon ku topp ay waxam maanaam doo doo doo doo réer mukk comme ni ko waxee kon suñ daa daaw suñu dernière question bi buñ liñ bëggoon ñu gën koo bàyyi xel baax mooy kon lan moo tax yenn yenn yenn kii yenn firaq yi di askanale yoonu murit ci ay ay mushrikuun ngeen ay bokkaalekatu yàlla ngeen ay ay bidaa ngeen di dundak ak leen sunna ak yooyu noonu lool lan moo ko waral dama yaakaar ni kon xëy est du baax du alphase yi nga xamante ni yenn mm, sama sama genre gi ñu koy faral di jëfandikoo est-ce que du looloo tax ku ñu dégg yaakaar ni ñun ay bokkaalekat lañ. Mm-hmm. Mm-hmm. ah jërëjëf euh, loolu am na solo micro mm-hmm. ndax boo xoolee euh, bari na ci lu bari lu ñuy askanale li koy waral mooy ñàkk xam la. ndax suñ tubaabam dañoo teere yee li ñu njëkk wax mooy. Euh, yaa max sara subaan in xiftum xajal fa xaddimu taaluman ala amal yéen ndaw ñi bu ngeen bañee gàccee di ngeen jiital xam-xam bala ngeen di jëf bu dee nag ci ñun nag istilaaxaat yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo di ko wax muy terme yi ñuy ndax léeg-léeg da ak murit mun la bu soobee sëñ Tuubaa mm-hmm. wala nga wax ak murit mun la sant sëriñ Tuubaa mm-hmm. euh, dëgg la sëñ sëñ Tuubaa moom dañ ko war a sant ndax sëñ Tuubaa moom li mu jëfal lislaam euh, liggéeyal yàlla ba suñu borom fay ko liggéeyal rasulilah yi sëñ Tuubaa bu mbindee fi yëpp dajal woon di ko sant lot nañ ci sant sëñ Tuubaa xaadim rasul mm-hmm. waaye nag day am yenn façon façon waxin yoo xamante nii day jar maanaam di ko di ko saytu bu baax a baax day jar di ko saytu léeg-léeg nag nit dina ko wax maanaam te du te du ko bàyyi xel bokkaale moom amu fi ndax yàlla moom xam na ni mooy kenn ndax Sëñ Tuubaa moo njëkk a jàngal yàlla rek mooy mooy kenn mm-hmm. suñu borom Sëñ Tuubaa jàngal nañu ko ci lu ci ay téeréem yu bëree bare bëri wane ko it ci ci ay ci ay xasaay ci ay ay xasidaam mm-hmm. kon nag euh, ñun murid yi wax dëgg yàlla li li li ñu war a def mooy jéem a waat bu baax a baax ci njàngaleem Serigne Touba Khadim Rasoul mm-hmm. ci téere yi nga xam taalif na ko jëmale ko ci tawxiid ak fiq ak tasawuf ndax loolu mooy tax ñu mën a nekk ci li Serigne Touba digle ñu nekk ci te moytandiku yenn xeeti wax yoo xamante ni daanaka daanaka jarul di wax ndax ndax lan amul am nekkul lu am solo kon euh, bu fekkee ne kon nit da laa dégg comme tey euh, suñu fi fi fi nga xam ne fi la suñu jamono toll nga xam ne tey firax yi am na ci ñoo xamante ni ci yeneen pas-pas lan gëm lu mel ni tey boo xoolee wahaabi yeeg ak ñi nga xam dañuy wooyee seen bopp nii ñoom ahlu sunna wal jamaa lanu te boo xoolee dañuy nekk ci euh, doomu aadama yi ndeysaan di leen di leen di leen gàggan di leen di leen di leen askanale ay bokkaale demee noonu te wax dëgg yàlla euh, bokkaale yàlla moom euh, suñu borom sax kenn mënu ko bokkaale léeg sax nit naan nit nit day wax naan di daa bokkaale waaye bokkaale sax nit mënu koo def parce que bokkaale ci xol ci xol lay lay nekk ci xol la te li ma gën a jaaxal mooy nit ki naka lay mën a nekkee koo xam ni moom xam na ni benn yàlla rek moo am muy suñu borom mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf xam ne yàlla moo bind euh, nit ñi bind jinne yi bind bind malaaka yi xam ne it suñu borom moo digle jaamu yàlla yëpp te li mooy nit ki buy julli rek foofu wane na ci yàlla rek mooy kenn ndax ginnaaw bu nga defee takbir ci ihram looy wax allahu akbar yàlla rek a màgg kon nit ñi moom duñ bokkaale yàlla mukk ci àddina duñ ko bokkaale ndax bokkaale yàlla ci xol lay ne xëy nag léeg nit léeg ñàkk xam mooy tax muy wax mm-hmm. ñàkk xam moo tax muy muy def yenn yi mm-hmm. waaye bu xamoon dëgg nit ki buñ xamoon dëgg-dëgg yu bare bari duñ ko wax waaye kon daal Sëriñ Tuubaa moom li mu digal daal moo ñu topp pas-pasu euh, ahlu sunna wal jamaa muy teg suñu tànk ci alxuraan ak sunna yerante bi alayhi salaatu wasalaam waaw kay jërëjëf Sëriñ Daawda kon mel na ni euh, loolu leer na nañi comme ni nga ko waxee sànq rek comme yenn terme yi nañu koy fexe di invité bu baax bu dee wàllu sant nag moom sëriñ bi moom sant Sëriñ Tuubaa moom loolu lu taw feexi la waaw loolu moom murit bu ko wax tamit moom da ngaa def da wax li nga war a wax ndax comme yoon saa sallam ni wax ni euh, man laa yashkuru naasa laa yashkurullaaha ku dul sant nit doo sant yàlla te Sëriñ Tuubaa yaakaar naa comme ni nga ko wax sant googu sax loot nañ bañ na ko moom màggal gi mu woote rek dafa wax ni man damaa lott ci sant sama borom damaa bëgg ngeen ñëw sant ma yàlla waaw kon kooku waxul ni ñëw leen sant ma de waaye ñëw ngeen ñëw sant le ma yàlla la bu dee baadul islaahaat yi na comme yeneen baat yi moom terme yi loolu bu ñu ko mënee invité nañ ko wattandi bu baax baax baax comme ni ñuy wax insha xadim comme bu bu soobee bu soobee sëñ Tuubaa wala bu ko sëñ bi dogalee mm-hmm. xeer yooyu yëpp daanaka da koy faral di dégg mm-hmm. te ki koy wax ak xër rek maanaam ak ko bëgg moo ko ciy dugal hmm. waaye comme li nga wax rek bokkaale lu jafe la hmm. bokkaale yàlla hmm. maanaam tey boo xoolee ñi ko daan def ñu dëgg njëkk dëgg mooy ñi daan jaamu xërëm yi asrul mooy jaahil yu nuyu mooy ñi nga xam dañu daan jaamu xërëm lislaam dikkagul daan bokkaale yàlla waaye ab jullit moom bu judd ci ndeyam baayam ñëpp di jullit mu maanaam muy muy jaamu yàlla kooku bokkaale yàlla lu jafe ci moom lay doon waaye kon li ñuy ñaan rek mbokki taalibe yi bu baax a baax a baax a baax ñoo xam ne sëñ Tuubaa dafa ñu bañ a tilimal ab liggéeyam mm-hmm. ndax nee daan na bokk ci maanaam lii tilimal deru sëñ tubaa wala ab liggéeyam mooy am murit boo xamante ni nga wax ñu xeeb ci sëñ Tuubaa mm-hmm. wala nga jëf ñu xeeb ci tubaa loolu dina tilimal maanaam ab ab euh, ab liggéeyu sëñ Tuubaa kon yenn terme yooyu nañ koy wattandiko bu baax a baax a baax tey baax mm-hmm. ndeysaan am na benn mbokk taalibe bu ma ci doon waxtaanal ci telegram bi fekk dafa bindoon loolu ma ma ci doon ma ko ci doon laabiire après mu jël mu jël ma ci suuf ñu ciy waxtaan lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo waaw ma koy xamal ni man mii di la ci corriger maanaam gënuma gëm sëñ a gënuma ko bëgg loolu waaye sëriñ bi daa am fu ñu yemloo te dafa am lu lu mu bëgg ñu présenté ko ñun murid yi ñu wane ko mooy ñu xam ni lii mu ñu digal ci ci téere mi lii mu ñu jàngloo jàng nañ ko duñu du ñu ay maanaam du ñu doon ñu xamante ne dañoo réer waaw sëñ bi tamit daan na wax ni wa min makaayidi lahiinil mujrimi saddul muridina ani taalumi bokk na ci pexe iblis nee na day day day téye muridi ba duñ jàng dañ naan leen sëriñ bi newul ci ay téere waaw sëriñ bi moom ku ne xam ne newul ci ay téere waaye ni ñuy toppee ay ndigalam di bàyyi ay téere moom ci téere yi la ko def foofu la ko jàngalee kon loolu tamit maanaam laabire goo xamante ne jëm nañoo bëgg mu jëm ci mbokk taalibe yëpp mm-hmm. ñu xamandoo ko noonu te xam ne terme yooyu buñ ko bàyyee wax mm-hmm. yàqul dara suñ pas-pas suñ digg ak suñ tubaa buñ yemee fi ñu sëriñ bi yemloo sëriñ loolu la bëgg ci ñun mooy ñu wane tawxid ju mat sëkk nag wane xam-xam bu leer nañ waaye nag boole ci yar ak teggin te fexe maanaam li ñu xam rek ñu koy jëfe rek waa loolu am murid moom xam-xamam loolu dong la koy doyee mooy li muy xam mu koy jëfe képp li sëñ bi wax ni fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nurun ma diraaya xam-xam nekkul ci maanaam foo toll yoo sa micro di conférence ak di wax ci kaw ak di xuppeeka di di di nettali ay histoire waaye xam-xam leer la goo xam ne day ànd ak euh, maanaam jëf bu ko defee ànd ak teggin mu mën a jariñu bu baax a baax a baax kon loolu lañ leen andiloon ci euh, suñu émission tey bii di jaalibatul buruur ñu koy ànd ak moo Nurayni yi ak suñu mbokk taalibe suñu baara ak suñu ñu ngi sant bu baax suñu gan gu tedd gi moom lañ dalaloon muy Serigne Daouda fay wax dëgg yàlla kontaan nañ loolu ndax boo xoolee waxtaan wi bañ bañ ko sàkkoo ci yow danga ñu ko nangul kon ñu ngi ñaan suñu borom defal la tawféex yokk xam-xam bi maanaam defal la euh, tawféex rek zaahir ak baatin ci barke Cheikhul Khadim wax dëgg yàlla bég nañ loolu liñ soxla ci waxtaan wi maanaam andil nga ñu ko te tënku na bu baax a baax a baax a baax a kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi rek seen mbokkum taalibe Zaid Ba àndoon ak yéen ci émission Jaalibatul Buruur wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh